mbokk yi asalaamaaleykum yéen ñi di ñu seetaan ci seen sit bi di Touba Info tey ñu ngi fii ci barab bopp kenn ci waa kër sëriñ Touba yi la di Abdoulaye mbay peex yaakaar naa ne kenn dootu ko présenté fan yi passé dégg ngeen coow yu bëri ci internet bi ñuy wax ne dafa am ñu mu jël yóbbu leen ci kër sëriñ bi ah weddi nag gis bokk ca. Ablaye Mbaye Pekh a ngi nii yegg si nañ ci këram fii ci Touba fas yéene yéeg laaj ko lu xew yaakaar naa ne wax ji sax du yem foofu eh, ku xam Ablaye Mbaye Pekh xam digganteem ak waa kër Serigne Touba yi incha allah nañu dem ñu daje ak Ablaye yaakaar naa ne am na ay kàddu yoo xam ne dina ko yëkkati ngir leeral kon sëriñ Mbacke bismillah. boole ki Cheikh ku ci woo ni la bayka mbaanaam lu di mu xaddam laa di woo. ku dib alxaaji maala woo boole gi Cheikh ku ma ci woo na ni labbayka mbaanaam di leen yëgal kii ma fi gis te kii ma gis ku ko fi gis tàndul ak moom ku ko gis gënu fi mbaa saful xorom ni ma laaj ki ma fi gis sangub jamono laa fi gis ni ngeen ma laaj ki ma fi gis sangub jamono laa fi gis laaj fi gis daleen ñaan na ki ma bu kenn dégg turam jërëjëf mbokk yi kon gis ngeen niñ leen ko waxee woon yegg si nañu ci kër euh, Abdoulaye mbay Pekh wax naa leen ne kenn dootu ko présenté ti kon nag bi ñu yegsee mu dalal ñu ak waa këram yëpp macha allah ñu di ko sant bu baax a baax a baax ci lim ñu nangul lii nag ndax xëy na ñu bari amoon nañ yéene eh, am jataay bu mel nii ak kilifa gu mel ni moom waaye yàlla dogal na xëy na ci ñun la ko jaarale ñu ànd ak Serigne Mbacke Seye ak Touba Info yëpp kon du ñu def lenn lu dul rek yëkkati kàddu gi jox ko Serigne Ablaye Mbaye Peex mu indil ñu ay leeral tuuti rek ci li nga xam ne nii mooy coow li nga xam ne ñu ngi koy dégg fan yi yëpp ku dajeek Ablaye Mbaye Peex mënoo ko ñàkk bañ a laaj digganteem ak waa kër Serigne Abdou Khadre boo ko laajul dana ca tàbbi digganteem ak waa kër Serigne Touba digganteem ak kër sëriñ Touba digganteeg ak sëriñ Serigne Mountakha mi nga xam ne ba mu toogee rek la ko woo mu bàyyi lépp kenn gisatu ko ci lenn lu dul ci liggéeyal sëriñ tubaa kon ñu yëkkati kàddu gi rek jox ko Abdoulaye Mbaye Pekh mbokk yi bismillah. asalaamaaleykum mbokki taalibe yi Cheikh maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm maa ngi sant yàlla. julli ci naa Muhammad sangub sang yi sant sëriñ tubaa Mbakke mi tax nu tal ko. ñaanal Cheikh Mamadul Muntaxa yàlla guddal fanam yàlla may ko wér waaye ñaanal sama bunt ci Serigne Touba sama bunt ci kër Cheikh Abdou Khadir di sëriñ Cheikh Mbakke moom Cheikh Abdou Khadir di ko siyaar di ko ñaanal di feddliwaat sama njëbbal ci moom Cheikh nag tey nga ñëw ci kër gi fii ci sama kër ci Touba ma sant ko Serigne Touba mi ma ko jox. di sant bu baax ci laaj bii nga laaj dégg naa coow yu bari ba tey leeral war na ci Assane Sylla li mu yëkkati wax ko ni maa fi indi naar bi man ku dikk fekk ma ci kër sañ Tuubaa ku dem bàyyi ma fi bi muy ñëw di fi ñëw Omar Baaw la àndal Omar sama xarit la ñu woo ma mu woo man ko maa ngi Touba maa leen jëkk ci kër sëñ bi fa lañu ma fekk ndax diiru bu Cheikh Mouhamadoul Mountakha toogee ak léegi wax ma ni ma ñëwal ci liggéeyu sëñ Bamba bii ñu ànd ko lu ma doon def banaa ko dégg sëriñ ma course kenn dégg jotali ma lenn lu muy sëriñ Touba ndax li ma sëriñ Touba defal ku dul yàlla mënoo ko Touba nag képp ku ñëw ci kanam sëriñ Mountakha fekk ma fi ma jotali la wax la lu baax ñépp laa koy defal. kon indiwoo leen fi. indiwuma leen fi biñ dikkee fi ma fekk keroog laa ko mas a teg bët moo tax moom mi defoon vidéo wi woo defaat na ay ojo defaat vidéo di ma jégalu jégal naa ko man du topp taalibe bi sëriñ tubaat dara benn taalibe bi Serigne Touba mënu maa def lu ma naqari. fas naa yéene it murit bu ma def lu ma naqari baal naa la fos naa yéene man duma ma tooñ benn murit murit bu ma seen sëñ bambalaay laay xool ci yow moo tax murit man damaa yéenal ci àll bi jéggalu na ma jéggal naa ko naari yàgg naa ñëw Touba Cheikh Mamadou Lamine Baara moo doon baayam ci sëñ Baara la doon ñëw. ba mu ñëwee ba sëñ bi ma introduire ko dalal ko daf ni sëriñ bi alaaji baara moo doon sama baay di sama sëriñ wax na ma seen diggante lu yàgg bi mu nelawee léegi nag ñëwuma Touba waaye tey li ma indi Touba mooy feddali wala réew ma sëñ Baara amoon ak sëñ Baara ma feddali ko ci yow ndax yaa toog tey place sëñ Baara yaa toog place sëriñ Touba wala réew woowu rek laay feddali moo tax ma ñëw. tàllal ay loxoom waxul leneen. kon yàgg naa ñëw Touba. yàgg ci jamono Cheikh Madou Lamine Bara ba mu fa jógee mi ngi añu añu Hizbut Tarqiyyah ba nu fa jógee laa dellu si waat sa même sama kër moom mu jàll ca mu sëñ Moustapha Alaaji Bara naar bi yàgg naa ñëw Touba. tey dara gënta garaaw lu tax nit di dem Touba. Touba ku fi ñëwul foo jëm ku ñëw Touba mucc. lu fi waay buub te lu dul noonu jëme si ko Touba du du yàgg du yàgg kooka. kooka ak Serigne Touba te du yegg si Serigne bee aar dëkkam bi nañu bàyyi xel ni Serigne Touba moo aar Touba lu fi waay dugal lu dul noonu ci sa bopp la jëm Moussa Ka ne ku tawlu da ngay teex sëñ Bamba kenn mënu koo nax mais nañu nañu xoolaat seen bopp murit yi wax loolu ci jamono yi Alaaji Baara la fi doon ñëw wala woowu sax fedd li na ko sëñ Moustapha doomam. tey sa kii toog te sëñ baara doon kenn sëñ taxa looloo ko tax a ñëw mënu ko moo doon sama baay rek ma ne naa la siyaar maa jot li sëriñ bi lii fa am leneen amu fa li Ablaye Mbaye Peex moo leen fii ndi tooñ na ma ma sëriñ Touba xoolal ba mu jégal mbaaxaan xoolal tey sëti mbaaxaan xoolal maam gànkal mënuma xuréeje maam yi sëriñ Cheikh Gaynde Fatma ba muy tur fetalam ci kanam sëriñ Touba ba tey mu gën fi sët sëriñ Touba ku nax ba ñëw ci moom mu segg la dindi sa téex sanni nga doonu tax mu wuti mi la def ca yëfam Cheikh Samba Diarra da ko ni bakkan bu tàggoo di waaj caafara jeex ca ki galaaj ni bisub këroog yàlla ak sa barke maa la gëm sëriñ bi ku faatu yaa fa jëkk teew bu ñu koy jullee nga defa teew bu ñu koy romb nga defa teew bu ñu demee nga des tontu ko layam mënu ko Samba Diarra mënu ko Mbàkke mënu ko sikkuwul bala koon nga koo xam murid yëpp ne ci waxtu kuñ dugal ci ko si bàmmeel ma nangu la nan génn ci sëñ Tuubaa te bàyyi kook sunu bopp kenn du wutal sëñ bi kuy ñëw ci moom man na nag ma kenn na leer ku dikk fekk ma ci sëriñ bi ku dem bàyyi ma fi kenn du ñëw ci sëriñ bi ma wax la ñaaw ni may jottalee parti pouvoir bi noonu laay jottalee opposition bi bu ñu ma fekkee sëriñ bi ku baax ku ñëw ma ne ko mbàkk kii diwa diw diw nii la demee toog te dañ may woo ma toog ci wetam loolu laa doon. man géwélub Serigne Touba laa moo tax ma fas yéene ku jàkkaarloo géwélub sëriñ Touba doo ca gisu ngéwél sëñ bi nga ciy séen tabax naay juma ak i jàkka dëkk ba ma dëkk sama kër jàngu alxuraan jàngub baa nga fa ñaari ustaas laa jël kii di jàngale alxuraan kii di jàngale arab weer wu dee maay fay tund wa ak dëkk ba ko am sa doom indil du skiri sa doom du fay doo ko fayal maay maay fay ngir jëmi sëñ Touba boo duggee ci jumaa ji ajuma ji jot ba jumaay peex ji noppee léegi ajuma jot ñu wàccee ñaari kaamil sàkk naa cinq personnes yuy wàccee alxuraan sëñ Tuubaa laay roy du ma defu ngéwél sëñ bu ko ci defu ngéwél ñu raw la tudde nañ ko nag man nangu ko ndax li wax yonent bi war naa am ku koy wax xoolal la ko Cheikh Samba doon wax te benn bis sëñ Thiari woo ba ma ñëw mun ma loo bokk ak Cheikh Samba Diarra daanu naa man ko ab sëtam lay denc sëtub sëñ ma tayir munuma yé sëñ ma tayir Cheikh Sadie ko jur Cheikh Sadie ak Cheikh Samba Diarra bokk ndey ak baay ma yéen ñaar yaag sa yaag sa yaag Cheikh Samba a bokk jëmu ci sëñ bi sëñ Saali woo ma ko wax foofa laa jëm duma ma géwélum ñaaro gay naagu gisee su ma ciy ngénte du taxaw ci ay géew di jottali du ma nanguy ndawtal sëñ bilaa jëm Cheikh Mountakha di sama mbokk ndax ma jigéen taal maamam Dior Mbéru ak Roqee Mbéru ak yàlla mberu Mbéru Koura ma jigéen taal ma jigéen taal la dëkk peex man rek maa yor ci réew mi tey fas wu ma sëñ Moustapha Bassirou joxoon ba léegi fas waa nga peex di dund fas sax du dund loolu sëñ Moustapha Bassirou moo woolu Moustapha ni ko wool ma Ablaye Mbaye mu woo ma ma ne ko maa ngi dugg Touba munu munu ma bul yegg jaari kër sëñ Abdou Khadir ñëwal ci man ba noppi doog dem. ma ñëw sëñ Moussa Bachir ni ma duggal ci wana wi yem ci fas ngi fi tànnal wu la neex ma tabbi yem ci ngëlëmbu la ba ma ko womatee génn dene ne woon naa leen ngëlëmbu li lay jël Bachir Fatou ma du maam wi ngay ma ca mbéy mbéy bi ma womatee fas wi kër sëñ Bachirou jëm si kër sëñ Abdou bi ma daataakay si kar nañ ma jox ma ñeent fukki junni ku seen fas wi gi ma ko rek nga ne ku la jox wi fas nga ne sa poos fas waa ngi dund mi ngi peex loolu mooy sama digganteeg Touba jéggalu na ma nag jéggal na ko ndax noo bokk sëriñ Touba man bu ma murit rayoon neex na man duma fayantoo ko murit man murit la waaye nag na leer na leer lii rek laa bëggoon indi sant leen gërëm leen ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha waaye santaat sëriñ Cheikh Mbakkam Cheikh Abdou Khadir ndax sëñ Cheikh kat ci yoon la ma teg. nangul nangul ma drapé kon maa koy sant moom itam maa koy gërëm di gërëm njaboot Cheikh Abdou Khadir yëpp ñaan sëñ Cheikh mu Cheikh Abdou Khadir yàlla na fi yàgg Mbakke te dama doon wax rek ne sans commentaire ndax sëñ Ablaye fii mu daanelee ay kàddoom ak lii ma fi jot a dégg lenn luñ ci wax rek vraiment amatul. kon mbokk yi yaakaar naa ne xanaa kay gàttaay wi waaye beneen yoon dinañ ko ñaan mu gën a yaatu li ma gën a marqué ci wax ji nag mooy fas wi ko Serigne Moustapha moom Serigne Bassirou jox. Serigne Moustapha ci taxawaayam bu am maanaa bi ci kanamu jàmbaaru lislaam ja Serigne Abdou Lahad Mbacké moom Cheikh Ahmad Bamba Khadimu Rasul jox ko fas woo xam ne diggante bi fi Serigne mustafaa jógee ak léegi nee na ba léegi fas waa ngay dund ak teraanga ji nga xam ne jox nañ ko ko ngir jëmmi fas woowu ñu nga xam ne moom la ko mu Moustapha jox ci yoon wi nga xam ne moom la jaar di yóbbu fas ba loolu yaakaar naa ne lu amaanaa la kon ñu ngi sant bu baax sëñ Ablaye jërëjëf macha allah jërë ngeen jëf bokk yi.